Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. Oui, bonjour, je m'appelle Biram Koudjelo. Je suis le troisième secrétaire général adjoint de PASTEF Les Patriotes. Je voudrais parler à l'opinion nationale et internationale de la situation qui prévaut avec le président Ousmane Sonko qui aujourd'hui, sa santé est préoccupante. Hier, il a eu presque un malaise au tribunal. On a voulu l'amener avec euh, un médecin qui a constaté qu'il avait besoin de soins, avec l'ambulance qui était là, euh, la BIP, Brigade d'intervention mobile, a refusé sous l'ordre de Macky Sall et l'a mis dans la voiture pour l'amener directement chez lui, alors qu'il devait recevoir euh, des soins. Arrivé chez lui, il est resté il a eu euh, des, euh, des, des, contusions et des maux de ventre. Euh, il a eu à appeler l'ambulance parce que c'était urgent. On lui avait refusé la sortie jusqu'à une certaine heure, ce qui est totalement anormal. Après cela, il est à l'hôpital, aujourd'hui dans une clinique de la place, l'hôpital la place. Et aujourd'hui, euh, on est en train de tout faire mais ça, la situation de sa santé est dégradante. Donc, euh, il ne peut pas recevoir de visite. Et c'est l'opposant numéro un, tout le monde le sait. Il a besoin de se faire soigner. Et nous savons très bien que, ici, tous les hommes politiques de l'État, et même les chefs religieux, quand ils ont besoin de soins, ils vont à l'extérieur pour se soigner. Aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut pas avoir la possibilité d'aller se soigner à l'extérieur parce qu'on a pris son passeport. On l'a placé sous contrôle judiciaire et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on ne lui remet pas son passeport qu'il puisse aller, n'est-ce pas, se soigner en Allemagne. Parce que on, l'a, on lui a euh, jeté, n'est-ce pas, un liquide euh, qui peut être une poison. Un poison pour lui. Alors, Euh, donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est inadmissible. Il va falloir que les autorités réagissent. Je m'adresse à l'opinion nationale et internationale par rapport à cette question. Il va falloir lui redonner son passeport, lui redonner sa liberté pour qu'il euh, puisse aller se soigner là où il veut. Mais aujourd'hui, presque on l'a pris dans un piège au Sénégal. Il ne peut presque pas voyager. compte tenu de son état de santé, je leur demande de lui remettre son passeport et de lever le contrôle judiciaire parce que son état de santé ne lui permet pas d'être dans ces conditions-là. Et je tiens pour responsable, Monsieur le Président de la République, devant l'opinion nationale et internationale, de la santé de Monsieur Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est dans une situation difficile. J'attire l'attention de tout le monde et j'en appelle à la conscience des uns et des autres. la population à se devant cette forfaiture que les gens veulent faire passer. Tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko sera de la responsabilité de, du président Macky Je le dis et je le répète. Donc cette vidéo s'adresse à l'opinion nationale et internationale, notamment la France, notamment les Amériques, notamment toutes les forces épris de, de, de, paix et de justice, les droits de l'homme et tout le monde. Donc nous voulons qu'on lui remette rapidement son passeport. Ça ne peut pas et ça ne passera pas. Je waaw man maa ngi tudd biram Khoudia nekk troisième secrétaire général adjoint bu PASTEF les patriotes di wax ni tey li ñu dund ci senegal dafa doy waar ci lii nga xam ne def nañ ko suñu président muy Ousmane Sonko muy bi mu nekkee tribunal dafa am presque malaise parce que dafa am lu ñu ko sotti bi nga xamee ni ñu ngi ko jël di ko yóbbu loolu la wax mu tey suñu xel lool mu dem tribunal mënul am am di jàmmam am di jàmm yaramam ba am euh, lu nga xam ni presque malaise la alors bi ñu ñëwee observé ko médecin bi ni nañ ko yóbbu ñu woo ambulance pour ñu yóbbu ko waa bip si seen bopp ni kenn du ko dugal ci euh, euh, ci ci ambulance bi ñoom ñoo ko yóbbu au lieu ñu yóbbu ko hôpital ñu yóbbu ko këram ñu ko yóbbu këram tere ko gén loolu bi mu amee terewul mu dem ba am ay métitu biir ak bët yu yu mel noonu daa di woo waa waa assistance pour ñu ñëw ñu ñëw ñu ne leen du ngeen dugg temps bi di dem ba tey parce que ñun wóoluwuñu kenn waaw temps bi di dem ba tey ñu dem ba ci fin bi ñu soog koy évacuer état de santé c'est préoccupant mu fanaan foofu bien que médecin yaa ngi koy suivre mais ñun suñu xel dalul ba léegi dama ni nañu ko jox passeport lii ñu teg ci kawam muy contrôle judiciaire bi nañ ko teggi te sénégalais yi dinañ taxaw pour loolu am parce que nag jaay doole bi dafa doy kenn mënul continuer di xoqatal ku nga xam ni dem nañu ba gis ni état de santé am xaw ma lañ lañ ci def fii mu ne mi ngi tëdd alors comme mi ngi tëdd nag nañ ko delloo passeport am nañ ko delloo dindi contrôle judiciaire bi mu dem Allemagne faj bi ju wala mu dem fu mu mën a dem falu ji parce que fii gis nañ fi ni ñoom ñoom ci seen bopp bu leen dara dalee dañuy génn dem faju ji faju ji France wala ñu faju feneen ba ci chef religieux yi dañuy dem di faju ji France di faju ji feneen alors Ousmane nag li mu tekk ci réew mi nañ ko bàyyi aussi mu dem fi mu bëgg dem faju ji mooy contrôle judiciaire bi nañ ko dindi loolu jaaduwul te Macky Sall est responsable de toute cette situation là parce que moom la ñu dénk suñu jàmmi réew moom la ñu dénk suñu kaaraangi réew donc nañu veiller à ce que suñu leader nekk ci jàmm te di mu mën a nekk ci jàmm mooy ñu delloo ko passeport am bu fekkee day dem faji mu dem faji bu fekkee ni day def leneen mu def leneen mais contrôle judiciaire bi nañ ko teggi parce que état de santé mayeetu ko léegi mën na war a génn di faju ji alors nan lay voyager du mën a nekk nañu seetaat li ñuy def réew bi ñëw ko bokk maa leen gërëm leen sant